xam nga euh, ñoom am nañ ma bët arrêté ko parce que c'est ce qui est normal bu ñu jafee kon jugement condamné ferme décision bi génn alors Ousmane Sonko dafa wax lu am solo mu ne bu ñu ko jàppee euh, huit heures dañ koy bàyyi dix heures non pas pour bon peut-être que ne mën nay wax ci wàllu politique mais juridiquement aussi c'est presque c'est c'est la même chose il a raison sur ce point parce que article 307 code de procédure pénale nee euh, le contumax s'il est arrêté ou s'il se constitue prisonnier l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit donc l'arrêt devient nul et qu'on reprend sur les mêmes formes la procédure donc le procès mu am dix jours à moins que dix jours yooyu noonu mu am mu acquiescer la décision c'est-à-dire dire que je suis d'accord ci peine bi ñu ma def. non après la constitution. dafay am dix jours pour. acquiescer la euh, condamnation wala euh, mu euh, rejeter ko ce qui est plus probable mm-hmm. alors en cas de rejet il sera rejugé sur les mêmes formes maintenant quel étaient les formes de jugement de Ousmane Sonko il était en liberté mm-hmm. il n'était pas détenu donc kon effectivement bu ñu ko jàppee war ko rejuger sur les mêmes formes dañ koy remettre en liberté c'est pourquoi mu ne bu ñu ko jàppee dix heures huit heures dañ koy bàyyi dix heures parce que les mêmes formes article ça c'est le code de procédure pénale article 307 actuellement Ousmane Sonko n'a pas droit de faire appel mais même bu ñu na bu ñu ko jàppee bu ñu ko jàppee boobu noonu la décision de condamnation bi parce que condamnation contumace foog nit ñi xam lan la quoi euh, l'objectif c'est de pousser l'individu à venir Mhm. comme ñëwul woon. waaw c'est-à-dire l'objectif euh, du jugement par contumace c'est d'imposer d'exiger à la personne de venir donc bu ñëwaatee rek bu ñëwee rek bu ñu ko gisee rek dañuy jugé waat. léegi yow lan nga ko lan nga yaakaar ne mooy doon posture bi pour moom en tout mm. cas euh, ndax mu dem coopérer carrément mu dem ci jugement boobu beneen parce que je l'ai écouté euh, côté boobu dafa jël sama point bi muy wax ne bu ñu delluwaatee ci procès bi dina ñu gis ne. Donc il a Genre, la volonté. C'est comme si quelqu'un qui reconnaît de... voilà, ouais. que il aurait dû y aller. Parce que yàlla nag dafa waroon dem ñu épargne de tout ça. je l'ai dit sur ce plateau là euh, je pense que c'était ci 11h bi ma ne l'erreur l'erreur euh, mooy doon de boycotter ça. Ah. Parce que sans avocat sans sa présence sans rien du tout ñu écarté chef mhm. d'inculpation yi ñu la doon toppee yëpp parce que gars yi dañuy kii naan ay disqualifié naan mhm. effectivement disqualification la mais ek dañoo écarté viol mais depuis lors dañoo écarté menace de mort sans pour autant que yow nga layal sa bopp dara lu ma bu bu bu bu bu bu euh, solution bi ci moom ñaari alternative ñaari ñaari position alternative bu ci mënti nekk day andi les mêmes su suñu ko jàppee ak s'il se constitue prisonnier alors euh, man jàpp naa ne. Mm. Euh, logiquement moom mu dem ne je me constitue prisonnier day contradictoire par rapport ak postulat de départ am bi waxoon terminus. c'est lui qui avait dit terminus ko. maintenant euh, mm-hmm. ba génne décision de condamnation bi donc euh, la voie mooy dañ koy jëli ci. d'accord maintenant lu ma ñu mm-hmm. ci dégg. lu tax jëlewuñ ko pourquoi tout ce temps là wala temps bi dafa nekk loo xamante ni c'est nécessaire. oui non c'est-à-dire normalement normalement parce que lii moom c'est inédit condamner une personne ferme te euh, bàyyi ko këram pire encore nga ñëw këram barricadé ko sans aucune base légale. c'est ça la loolu moom mooy am amul kenn ku la mën a génne document ne lii moo waral euh, kii bi d'ailleurs le ministre de la justice lui-même vous dit que ni ce n'est pas une décision judiciaire mais mesure de sûreté ordre public ainsi de suite donc kon lii inédit normalement normalement après la condamnation boo tegoon dix jours da ko waroon na exécuter décision boobu noonu c'est euh, c'est pourquoi euh, lui Ousmane Sonko mu ne le c'est le président Macky Sall qui va euh, kenn lañ may jàpp. son sort. parce que l'exécution de la condamnation c'est le parquet qui est soumis à une hiérarchie donc parquet bi dépend du ministre de la justice ministre de la justice qui dépend du président moo tax parfois ma naan ici au Sénégal c'est le président qui a l'opportunité des poursuites et le président a confirmé en disant que am na dossier yoo xamante ne su naree andi problème dama koy téye. parce que am na sañ-sañ bi. beneen bi ma lay laaj